yi est-ce que mën nañu wax ne c'est une visite républicaine wala visite traditionnelle la. bon effectivement euh, Sénégal xam nga dañoo am ay aada am ay yoo xamante ni moom mooy suñuy croyance yoo xamante ni ci c'est ancré aussi dans la république donte suñu article premier suñu constitution dafay wax ni suñu république bi c'est une république laïque ça c'est ça c'est clair. mais république lay terewul euh, boo amee ay croyances nga xamante ni euh, en majorité sa population yi soo jëlee pour cent yi c'est des croyants. Mhm. buñ dul chrétiens c'est des musulmans. Euh, ñu am fi di dund ak suñuy suñuy suñuy kilifa ay diina ñu jox leen ñu wekk leen wekk boo xamante vraiment. Mhm. saa yu réew mi demee ba nekk fi ci yenn situation yi suñu xel day dem ci ñoom. donc mhm. ñooñu munoo ñëw nekk président de la république ñu fal la nga won leen nga won leen ginnaaw. donc buñ avril tey jii première sortie officielle comme ni nga ko waxee léegi mhm. mu consacré ko à une visite officielle à à Touba auprès du khalife général des Mourides. c'est mhm. c'est effectivement symbolique. que mhm. moom euh, fas yéenewul doxal réew mi won ginnaaw ñi nga xamante ni euh, ñooy kilifa diine yi parce que loolu bu ñu bu baax ci ginnaaw ci campagne électorale beeg laata ñoom sax mhm. fi nekk yooyu. donc tey jii euh, Bassirou Diomaye Faye tey jii nga xam ne bu mu jëlee pouvoir bi mu jëlee pouvoir bi Euh, fi mu njëkk a dem mooy France première visite am dafa génn réew mi jël avion dem France kii bi mu jëlee pouvoir bi le 2 avril ak léegi gisuñu gisuñu ko mu génn benn yoon ci réew mi. même ñu ngi annoncé dinaa dina dem Mauritanie. waaw dina diñu ko annoncé dina dem Mauritanie même suy dem Mauritanie sax laataa muy def beneen visite gis nañ ni quand même la première chose à faire tey jii. Mhm. mooy bu mu génnee Dakar fi mu dem. mooy auprès du khalife général euh, des mourides le khalife général des mourides c'est pas n'importe quel personnage mhm. dans ce pays mhm. c'est quand même euh, l'une des tarixas les plus influentes du mhm. pays qui regroupe des millions euh, de fidèles donc muy koo xamante tamit euh, c'est un leader d'opinion te bu waxee ñëpp dañ koy déglu donc muy koo xamante donc ku jara bàyyi xel la ci réew mi donc bu consacrer sa première visite auprès de ce saint homme donc dañuy dañuy rafet njort ci relation bi war na ko mën a am ak pouvoir temporel bi euh, ci lii nga xamante ni mooy nguuru euh, Bassirou Diomaye Faye. d'accord alors euh, Pa Moussa est première sortie du président de la République Bassirou Diomaye Faye comme na ko aya boo waxee dañoo amoon tendance gis ne suñu président si sont nouvellement élus dañuy génn dem bitim réew notamment France mais moom première sortie mu daal dem fii ci Touba dem gis Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké est-ce que loolu dafa ñëw déconstruire image jàkkaarlool nii Bachir na lool de. Bachir euh, na de Bachir Diomaye ak euh, euh, Serigne Bachir Abdoul Khadir jàkkaarloo ak kilifa gi sëriñ Mountakha Bachir. di ko ñaan te loo xam aussi waajuru sëñ Mountakha Mbacke. mooy sëñ Bachir kooku suñu suñu dëkk ndax moom Kaolack la ne. macha allah sëriñ Serigne Bachir Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér Serigne Mouhamadul Mountakha. ak ñi nga xamante ne tey seet si nañ leen muy euh, le président Diomaye di leen ñaanal euh, ndam parce que euh, effectivement comme ni nga ko waxee man bokk naa ci ñi nga xamante ne daan nañu interpeller lu bari ci ay perception salafiste de Pastef loolu ñàkk ñàkk xam-xam la soxna xari mhm. parce que salafu saalihin moom mooy les pieux ancêtres kon Serigne Touba salafiste la salafiste mooy ñi nga xam ne mooy génération yi njëkk yi ànd ak yonente bi mhm. loolu kenn du ko xasee nit wala boog ku koy xasee nit yow xam waa kay da nga koy tagg mu ngi noonu donc loolu moom mooy euh, tey jii nii di mu consacré effectivement euh, différence bi nga bi nga wax sax lu jot lu jara lu jara souligner la d' autant plus que euh, le président Macky Sall boo xoolee bi muy bi muy bi muy delloo si waat les accords militaires c'était avant le 4 avril alors qu'il est élu le 25 mars 2012 donc intervalle boobu noonu xam nga ne kenn mënu faa négocier des accords militaires donc la nga xamante ne moom moo ci amoon moom mooy ce sont des euh, promesses préalables mmh. alors euh, la particularité du président Diomaye moom mooy lui il ne doit son élection il ne doit son sacre ko peuple sénégalais. du mhm. keneen amul benn puissance impériale bu ci dugg. amul benn puissance euh, peuple sénégalais bi la. Euh, au contraire sax ñeneen euh, ñi nekkoon à l'extérieur ils avaient d'autres perceptions de de de de de sa candidature que moom donc kon moom amul lu mu redevable à qui que ce soit ku dul le peuple sénégalais. Mhm. alors ci peuple sénégalais boobu noonu tamit le vote de Touba aussi a été déterminant mais ce n'est pas aussi benn benn orientation politique qui justifie visite bii Muntaxa euh, par rapport ak li muy représenté mhm. ci euh, Sénégal la communauté mouride aussi li muy représenté ci Sénégal notamment sur le plan démographique mais sur le plan économique aussi parce que jàpp naa ne comité communauté la boo xamante ne liggéey moom euh, loolu li sëriñ bi yaree ay taalibeem ci la mhm. bokk alors donc kon ñooñu noonu di symboliser le culte spirituel ak le culte du travail mhm. jàpp naa ne le président Diomaye consacré premier visitam à Touba lu normal la lu lu lu ñuy rafetlu euh, lay doon mais tamit aussi euh, Touba am ay problématiques yoo xamante ne jàpp naa ne état bi daf ci war a dugal loxoom le plus rapidement possible notamment la question de l'eau wax na ko de l'assainissement donc kon y a des a des y a des urgences réelles qui sont qui donc euh, lii nii foog naa ne sénégalais yëpp ñoom ñoo ko war a rafetlu en yeneen foyer mhm. religieux mais encore une fois ça coupe court que ña doon wax parce que Pastef day xeex tarixa mooy waxi et que euh, même ah, l'élection oui oui l'élection moom mu xam naa ne fa la jaaree noppee ñëpp parce que foyer religieux yëpp moom daf koo gañe mhm. kon donc jàpp naa ne euh, lii nga xamante ne moom la def consacré premier visitam ci euh, Touba te bu ku wax Touba wax Tivaouane wax Kaolack parce que loolu moom mooy Sénégal mhm. ñoo ñëpp lépp loo xamante ne seen mag yi Cheikh mun Mountakha mhm. recevoir na ko ñeneen ñi ñëpp dañuy jàpp ne moom ci ñoom la jiita donc kon foog naa ne lu ama am solo la te eh, taxawaayu euh, le président Diomaye euh, am na solo notamment parce que l'image aussi parle euh, communication ngay def mm-hmm. am na ci yu bëri yoo xamante ne mm-hmm. tey jii nii même avant avant visite bii nii mm-hmm. wane na carrément worma bi mu am jëmale ci diine ku nekk gis na ko aussi ci tabaski bi ak imam bi gis nañ ko ci yeneen fànn donc am na lu mu war a mën a andi ci xel bu dal ne nit ku war kilifa la nit ku am yërmande la mais nit ki la ki nga xamante xam na na euh, les réalités socioculturelles mm-hmm. et religieuses ci euh, Sénégal donc lii nii. réalité yooyu sax chef de l'État wax na ni dina def Touba euh, ci loo xam ni benn chef de l'État def ko wax na ci question problématique de l'eau assainissement yi nga xamante ne côté dëkk sax daal dina ko évoqué wax ni na ko ci jàppale bu baax baax mu mbirum assainissement a dugg ci li nga xam ne mooy hivernage inondation nekk problème boo xamante ne solo bu baax baax ñu dëkk ci Touba mm. alors Pa Moussa ñu ñëwaat aussi ci poids électoral Touba mm. c'est vrai que les acteurs politiques foofu dañoo bëggoon am les faveurs euh, de de nos autorités religieuses mais dañoo gis ni léegi Touba poids électoral dafa gën a am solo surtout bu ñu xoolee résultat euh, du dernier scrutin présidentiel. la commune de Touba kese kese kese kese ëpp na ay région en matière démographique ko euh, ko commune Touba département Mbacké mooy deuxième ville démographique te département lu muy doon département boo demee ay région de Kaffrine Matam affaire yooyu noonu moom moo leen ëpp poids démographique tax ma ne aussi même sur le plan économique la communauté mouride aussi ce n'est pas la communauté de Touba la communauté mouride dépassé na dépassé na mhm. Touba mais te culte du travail boobu noonu nga xamante ne depuis euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul xam nañ ne communauté la boo xamante ne même booy observer la société sur le plan des affaires et autres xoolal les hommes d'affaires yi plus aguerris te pourtant la plupart du ñu jaar école française donc dañoo am beneen système euh, de développement économique boo xamante ne c'est propre à te loo xamante la état mën am benn kii de développement parce que man j'étais cabinet nangam mu defal la plan Sénégal émergent alors que boo demee no liir Serigne Touba ci euh, Massalikul Jinaan boo demee xool Serigne Touba ni mu bind ci Madabul ni nga xam li mu bëgg ci dëkkam bii di Touba euh, système économique la bu performant mm-hmm. c'est-à-dire Serigne Touba euh, ku ko xamul rek moom moo koy tënk rek ci tarixa mhm. Serigne Touba euh, humanité la ñëwal Serigne Touba c'est une perception boo xamante ne humanité ci bépp anam nag mën nga jëriñoo ci moom li nga xamante ne moom mooy euh, mooy liggéeyam moo tax euh, ñuy rafetlu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ce projet université boobu nga xamante ne def na mhm. ko à mhm. day wane dëgg dëgg dëgg li li li Serigne Touba doon ci quintessence par rapport ak une vision économique une vision politique parce que Serigne Touba aussi c' était un acteur politique. boo mm -hmm. parce que politique c' est l' art la cité. alors moom euh, bi mu amee euh, mécanisme de développement dafa centraliser li nga xamante ne moom mooy gis-gisam ci Touba. Mhm. mais aussi dafa décentraliser ndax ne Serigne Fallou demal ma ndindi ku réer mu giddi mhm. nga ne euh, ku mel ni Cheikh Issa Diène ma ba laagal ma fekk la faak la gën c' de décentralisation bi nga xamante ne daf ko def te décentralisation boobu parallèlement à l' acte 3 de la décentralisation gis-gisam aussi. Mhm. lay lay lay lay décentraliser te ñi nga xamante ne ñoom ñooy jugee euh, Touba dem ci yeneen i dëkk ba dem bitim réew dañuy demaale des ambassadeurs de mhm. cette vision bi nga xamante ne moom la développé donc kon euh, le président jomaay mhm. il gagne le Sénégal gagne à ce que ñu jëlaale cette perception là de l'économie cette perception euh, de la vision politique bu Serigne Touba mhm. ñu booleel waale ko ci doxalu doxalinu askan parce que man damay faral di ŋàññ naka la ñu mën a amee un état inspiré de Montesquieu de l'esprit des lois inspiré de John Locke traité sur le gouvernement civil te bàyyi fii li nga xamante ne moom la suñu mag yi nii bàyyi donc mhm. kon visite bii mu tàmbalee fii tàmbalee na fi mu war a tàmbalee mhm. tàmbali na ci ñi mu war a tàmbale mhm. léegi nag après euh, dafay symboliser li président Senghor doon wax en ouverture. après ouverture mais enracinement d'abord parce que ce n'est pas pour rien qu'il commence par l'enracinement mm -hmm. donc l'enracinement à Touba yeah. après nag maintenant ouverture, ouverture par rapport ak kii parce que ku nekk xam na ne monde bi kenn mënatul vivre en autarcie mais booy ouverture da ouverture selon tes propres intérêts d'abord d'accord alors Ayoba balaa ñuy ñëw sax ci yow dañuy nuyu suñu invité du jour fàttali ne muy Serigne Mbacké Lo Daaru Xuddoos sëñ bi ñu ngi lay bu baax a baax rafetlu sa teewaay ci plateau bi tabarakallaa soxna si ñu ngi bu baax di fay sunu nawle yi nu fekk fii. Mhm. yi Pape Moussa ak ay di leen. am mbégte ci dajeeg ñoom si. Mhm. plateau bi xam naa ne samay regret mooy doon la may clôturer. Mhm. doon na ma neex lool mu amoon temps bu yaatu. gaa yi ma fekk leen fii. kon nag leen yàgg topp di leen seetaan leen yàgg di seetaan. macha allah ñuy développé. fii fi Sénégal soxloo waxtaan. macha allah waxtaan wu am jàngale tegu ci xam-xam. ànd ko bi yar. te fayul bor leblewul. am nañ ko moom. macha allah kon ñu ngi leen di ziare. d' accord nañu ñëwaat ba kon mu ko waxee Pa Moussa Sow le poids électoral de Touba ce qui s' est passé euh, récemment ci bi yow ban lecture nga ci am maanaam euh, ñu bari nañu dans les autres régions élection fa am mais à Touba moo fa am. bon pour woon Touba woon du woon sax pour pour pour régime ñoom xamoo pour pour kii bi pour régime bi ñoom il savait que foofu dañ koy perdre à la parce que euh, de 2012 à je me rappelle à deux 2019 Macky Sall gañewul benn élection. biir Touba Touba dañoo mos a voté contre le régime de Macky Sall rawatina nag bii yoon bi nga xamante ni vraiment ak li fi xew yëpp ci ay ci ay ci ay ay ci ay jaxasoo ak ci ay ci ay tension après c'était prévisible que Touba allait Touba allait basculer en faveur de de de, de l'opposition mais est-ce nga ko de cette manière. Bon. Presque à 98%. Presque à 98%. C'est vrai que chiffre quand même, c'était c'était c'était ahurissant ouais. après parce que bi résultat yi commencé daanu rek mais ci un candidat boo xamante da nga doon wax ni dañuy xeex tarixa moom lañ la doon tuumaal mu gagné fa à 98% d'abord li la doon woon loolu rek mooy matin bi matin bi bi nga gisee taux taux de participation bi à Touba quand même c'était c'était c'était ahurissant